asalaamualeykum mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli seen salaam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool dool dool jàmm si réew mi ñu ngi nuyu laaj bu gàtt ko ñaan ñaan njabootam ñu ngi nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu suma xarit Cheikh Mbacke Ndiaye si Biguène soxna Rama Sylla soxna Gañsiri bu feem si kër di nuyu soxna yi di nuyu waa Xobal aussi ak dëkkandoo amoo sànq yi di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi béggee si mission seen yaram bi ñu ngi jot ñaan yi nag ñu ngi koy jot bu baax a baax a baax vraiment dina tax lu ñu doon góorgóorlu danañ ko yokk tey nag dañu ñëw si tawat bu jaaxal bu ma jaaxal jaaxal ni ñëw si man daal defe naa ni problème ulcère ak estomac damay dem ba yaakaar sax xëy na nit ñi daal vraiment dañ si lu am solution feneen parce que li ñu si jot si ay kaa bari na man xawma lekk yi la xawma lan la daal vraiment war nañu xoolaat li ñuy lekk dañu xoolaat baax a baax a baax ulcère moom ak problème gastrique reflux gastrique yi liñ ciy jot si ay patient bari na trop trop trop foo ko takkat ñëw la sama fii mooy metti leneen ñëw la sama suuf fii côté gauche bi la mais dama leen xamal lenn digg bi fii moom saa yoo fi yëgee douleur muy jam di awoo si ginnaaw gi li si ëpp dans quatre-vingts pour cent des cas ulcère de l'œsophage ndax damay wax toujours que ni estomac bi yàlla daf ko tapissé daf ko laal tapi boo xamante ni lekk yi acide bi ñuy jóge si lekk yi du la du la sonal or que œsophage bi amul tapi boobu moo tax saa amee ay remontée gastrique acide boobu ñëwee fi mooy lakk fii bu yàggee lakk nag dem ba lakk œsophage mën na jur ulcère à long terme ulcère duodénal bi aussi boo ko amee na indi douleur bi côté bi ndax ñaara am douleur moom bu kawee léeg mën naa nekk xool bi bu suufee li sa problème estomac saa yoo lekkee lekk gu acide wala gu saf wala yu mel noonu kaaneeg yooyu quelques minutes après nga sentir douleur xamal ni am nga ulcère soo noonu lay xiifee sonn soo lekkee ba suurit sonn moom ñaar extrême yi benn baaxu boo xiifee da day metti biir bi boo lekkee ba suurit mu metti biir bi mu am nag ay xeetu lekk yu mu bañ yu nit ñi xamul da nga lay am ulcère ni ñu naanal meew mais boo amee ulcère naan meew mën naa bënn sa biir nit ñi xamuñu ko meew mi dafa am calcium dafa am calcium dafa am gras te loolu baax su ulcère kon boo amee ulcère da ngay éviter meew mais da ngay histoire boo amee crise ulcère ñu ko naanal meew c'est dangereux erreur la café ki am ulcère daf koy moytu ban na ñoo dem dañ nañ ba tuumaal leen seen lekk fekk dañuy jox dañu ñëw si kër am ulcère waxuñu ko ñu jox leen café ñu naan daanu ñu lekkam lekkoon fee la fekk café gam naan dafa am caféine dafay xoos estomac bi baaxul mook nga am ulcère ñu jox fer aussi ñooy am fer boo am ulcère doo ko jël day irrité day xoos sa estomac baaxul yooyu jar naa xam ndax nit ñu bëri ngir loru leen di loolu mooy lekk yi dañu lekk lu ñu xam lu am mante aussi baaxul ndax boo amee lu am mante xam nga boo am boo lekkee ba noppi dafa am lu ñuy wax sphincter estomac bi dafay tëju si kaw mooy wala a lekk du yéegaat sooy jël lu am mante wala ngay respirer saxaar sa saxaar rek dafay ubbi sphincter boobu day faciliter remontée gastrique estomac dafa tëjee soo ba am nag ay li ñuy wax béance cardiaque ak hernie hiatale estomac dootul tëjeeti mooy tax ngay sonn soo lekkee lu bëri da ngay sonn léegi arrangé rek mooy di lekk lu yem. moo tax ki am ulcère lekk bu bari top suur de trop jiku ko da ngay lekk par tuuti soo lekkee ba xaw a ki nga bàyyi bañ a mooy tom tàpp tàmm aussi ay grignoté lekk lu ne nga jaxase ko sa bëggul jaxase boobu ulcère boobu. kon loolu jar na jar na xam yu acide yi aussi nga moytu ko lu épicé yi mel ne laaj beek ñoom seen. si lekk yi aussi mën na indi ay ay jafe-jafe kon soo moytoo li nga xam ne ulcère ba bañ na ko ba nag nga seet nag li nga xam ne boo ko defee am jàmm solution bu njëkk mooy jinjar kii boo amee ñett yu toll nii rek danga koy dëbb def ko si litre ndox yëngal ba mu far nga segg ko bala ngay lekk mën nga si xel génn wàll kaas ku lem naan léeg da nga digal ne euh, jinjar si ulcère mu la noo bu ma ko nee day tàng mais tàng teew ko bi kii dafa am fukki principe actif ak benn yu ne biir yoo xamante ni dafay faj ulcère soo ko dee booleeg ndem mo am garbu ko gën so amé aussi khasum dakhar dara gënu ko dakhar muy la tamare di syndicat nga fay ko bam saw baxal ko diko jël par genn wàll kaas boo ndékkee boo aña bale dara ko nga faj ulcère lool ñu bay xal xel baax a baax ñëw si question ni ñen tay ki len dafa gënt dal euh waaw gis daal nuage de fumée maanaam saxar su jug saxar rek la gis na gisul tàkk-tàkk loolu dal ay difficulté en vue la am na ay jafe-jafe yaal yoo war a tund yu ñëw na nga ko sóoraale waaw boobu la boobu la bett saxar daal saa yoo gisee mu def benn nuage rek di tourner nga gisoo si gént ay jafe-jafe yu ñëw la lay woon ñu bàyyi si xel bu baax ki stop nee na daal dafay xasan xasanu yaram moo ko sonal yaram daal mooy xasan def ay heure façon suuruur la si gën a gaaw suuruur moom la ñuy wax l'acacia séel ba boobu jëlal takk bi rek nga fay ko bam sew baxal ko si liitu ndox di ko naan par genn wàll boo ndekkee boo añee boo si kàttanu yàlla leen nga tàggoo la ñun tàggu fi leen di ànd ak seen émission yi gërëm jërëjëf